ancien ministre sous Wade coordinateur du rassemblement pour la pérennisation du patriotisme libéral monsieur Serigne Mbacké Ndiaye ngi lay nuyu. maa lay fay. sa réaction suite au décès de Babacar Touré euh, la presse est gis nañ sa engagement bi nga amoon par rapport ak euh, le code de la presse su Wade ba léegi ban sentiment nga am. oui jërëjëf ci occasion bi mu jox pour ma waxaat ci euh, suñu xarit euh, Babacar Touré ndax euh, bu leen di seede xëy na ñu ma ko gën a xam gën ma ko jege wax nañ ci loo nga xam ni xëy na man mënu ko wax kon ku mel ni Babacar kenn ku nekk dangay wax li nga dund ak li tubaab di wax anecdote ma dana nekk lenn lu mës a am suma diggante muy lu gàtt mais lu rëy ci ndax sama doom dafa hospitalisé ci benn clinique fii euh, muy clinique de l'amitié bi muy war a génn euh, ñu woo ma téléphone sama doom bi fa nekkoon ak moom woo ma ni ma dañu war a génn à heure ma ñëw dem pour fayu facture bi nga xam ni su ma jiw mu nekkoon ne huit cent et quelques mille bi ma ñëwee comptable bi ni ma fay nañ ko mu ko kat moo ko fay mu ma ah fay nañ ko de ma insister mu ni ma non fay nañ ko ma ne ko non soo ma waxoon ko ko fay du ma génn mu ni ma laajal directeur jox ma numéro directeur bu clinique bi ma téléphoné mu war wóoraan bàyyi mun ma Babacar Touré moo ko fay mais daf moom moo la ko wax man ko mais Babacar Touré nan la xamee ni maa ngi fi mun ma ci biir waxtaan man ak moom laa ko wax ni ah suñu xarit bi da doomam dafa hospitalisé mu ñëw fay facture bi di yëgu moom kon loolu dafa nekk benn benn exemple bu tuuti buy wane nit ki dayoo beneen bi ci topp mooy ku nekk gis na ni nit ku ku ku dëddu àddina la ku dëddu àddina la parce que xëy na amoon na moyen foo tourné gis ko ci télévision foo tourné dégg ko ci rajo foo tourné di ko ci journal lépp lu xew mu jiite ko di jàggar jàggar parce que xam-xama mayoon na ko ko dayoom mayoon na ko lépp mayoon na ko mais kenn mësul gis mu di ko def donc loolu dafay wane ban façon nit la Babacar Touré nekkoon euh, nañ ma dégg ñoo woy Sénégal dañu bàyyi ba nit dee ñu di ko teg seedeel waaw parce que suñu diine moo ñu sant ni nit bu génnee àddina lépp li ngeen xam ne moom ci lu baax da ngeen koy wax li bon wax ci nit loo xam ne dañuy jàpp ni lii da nga ko waaye amul te Babacar lu wax ci moom ci lu baax am na loo ci bàyyi suñu mujj wax man ak moom téléphone euh, dafa ma woo sant ma ci ay taxawaay yu bari yoo xam jàpp na ne gis na ma li ci taxaw te luy indi dal ci ba ñu waroon gisante ngàppoon yàlla dogalu ko ba suñu jonni tey parce que li tax yàlla dogalu ko su mooy bañ ci doon wax ba ñu waroon ko def dafa tase corona dugg si donc loolu jotagul naa te boo gisee bi mu génnee àdduna ni ko nit ñi taxawoo ak biñ ko yóbboo Touba ci sëriñam mu tedd ba ndax ku nekk xam ne sëriñ Mountakha caaxaan ko tax a jóg bu jógee ñëw taxaw sëñ Moussa Nawel jóg taxaw ñëpp njabootu sëñ Touba gépp ànd ñu taxaw ci dafa wane ni Babacar vraiment nit la ko nga xam ni macha allah dundam rafet na yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana bi gën a kawe yi na yàlla teg loxoom ci njabootu ngir fi bàyyi donc Babacar loolu laa ci mënoon wax euh, di ñaan nag ñëpp nag surtout tout la presse ñu jël exemple ci nit ki parce que nit ki booy ànd ak moom. lu mu la war a mën a jëriñ am na enseignement boo bàyyi na ko fi je pense que wax ko baax na waaye bu ñu ko waxee peut-être nañu jëfee ay ndigalam kon daal moom laa mën a wax ci Babacar